koo xam ne liir naa article am aussi muy wax ni muy alimtin suma juumul bu ma juumul ci kàtt yi nee na dañoo war a daal réformer li nga xam ne moo di euh, assemblée nationale ndax am na ci yenn propos yoo xam ne bu ko benn député indee dañoo war a ubbi ay commission euh, ay commission parlementaire ngir leeral mbir moomee ndax bu ñu demee ba ci réew boo xam ni peut-être euh, réew moo xam réew mu laïc am na ay julit am na ay catholique dañoo war a leeral yenn mbir yi ndax euh, bëri na ci loo xam ne ay réew la yoo xam ni euh, lu mel nii moo ko taal te ñaanu yàlla Sénégal lu mel nii ci ay financement islamisme ak yooyu ñaanu yàlla mu taal ko donc li ñu waroon def mooy ginnaaw bi nga xamee ni Motar Diop affirmé na. ne yor na toutes les preuves yoo xam ni dafay firndeel ni Ousmane Sonko dañ koo financé lu toll ci vingt milliards vingt milliards euh, vingt millions de vingt millions de dollars ñu koy xayma ci lu toll ci ñaar fukki milliards ak ñaar ci suñu ay koppar ba ñu ko waxee moom mu génnaat confirmé waat que ni am na ay preuves le surcroît ñenn ci ñaari journalistes yoo xam ni doon nañ ay doyen te ñëpp naw aussi seen xam-xam ku ci mel ni Madiambal Diagne ku ci mel ni aussi Cheikh Yérim Seck ñoom bu ñu génnee mel ni ku firndeel loolee procureur de la République kat ah, comme que ni liñ ma fi tegee mooy xeex àq ak yelleef doom aadama yi waaye itam justice indi dëgg ci loo xam ne dafa leen dem xaaral ma woo nga xam ne ñoo génn porter ces accusations sur Ousmane Sonko te ba tey li ci gën a doy waar moo di Ousmane Sonko ba tey yooyu yàbb ca mbir moomee gannaaw démarche bi nga xam ni Pape Alé Niang def na ko yónnee ab lettre euh, Qatar ba ak réaction bi nga xam ne Tariq Ramadan bi ñu njort ni aussi bokk na ñi nga xam ne moo doon séddale nee na loolee dara amu ci kon procureur de la République war naa wóolu député ndax moom li muy wax am na ci ay firnde wala donte sax ñi nga xam doon lañ tuumal ñoom wedd nañ ba mu set ci moom mi nga xam ni moo taxaw ni am na a woo devant le juge yi nga xam ni daal dina koy am ci diggante ba transfert d'argent boobu ñuy wax ni Ousmane Sonko daf ko daal di jot Bamba ah, Abdou Khare leneen loo xam ne sa kuy ne bi mooy maître Moussa Diop génnaan na génnee ay preuve que ne li mu waxoon daal moom du ci euh, change yota mooy état bi dafa daal di commande ay armement xam nga loolu itam mën nañu jàpp ni rek état dafa faillir à sa mission régalienne ni mu faillire à mission mooy dañ daan gis gis nañ Bassirou Diomaye Faye lan lañ ko jàppe dafa daal di bind benn post ci li nga xam ne moo di page Facebook euh, ki nga xam ne moo di Fadilou def 7 décembre bi nii un an ci bi doom jud na ci ginnaawam gisu ko moom Fadilou Keita mi ngi nekk ci prison bi jabaram ëmb na fi ba am doom euh, gisul benn yoon doom jooju nga xam ne moo judd tey gis nañ ñooñu li mu bindoon dafa sampoon ab laaj ci di jabat ji mi nga xam ni euh, faatu na

état dafa jënd ay armement mais lu muy doyee arme palais buy jënd arme am na fu ko war a jaarale xaw ma nag circuit bi nu ma war a demee mais dégg naa ci ab émission ñu ne dafa am fu mu war a jaar waaye tey bu ñu demee ba moom maître Moussa Diop mu persister signé que ni état dafa jënd ay armement donc war nañu lijjanti te moom maître Moussa Diop génne na ay preuve génn na ay preuve génn na ay document ñëpp di ko gis mais ba tey gisoo benn yoon état du Sénégal yëngatu yéy yàbbi ca mbir moomee donc ñun fi ñuy li ñuy laaj laaj bi ñu sax mooy est-ce que état nekkul di jouer ak sénégalais yi est-ce que état aussi loolee nga xam ni mu di ay révélation yoo xam ni maitre maître Moussa Diop nekk ab avocat wax na ko ci ñoom ba génn ay ay ay ay ay preuve dëgg la wala ñoom dañoo nekk di tax di di di di di di jëlale ndax pour man bu ñu yëkkatee accusation yu mel noonu teg ko ci état Sénégal teg ko ci koo xam ne moo jiite ñëpp moo yilif ñëpp moo am doole topp ku ko neex moo am doole jàpp ku ko neex moo am doole bàyyi ko neex kon tey bu ñu demee ba maître Moussa Diop yëkkati kàddu yooyu teg ko ci état du Sénégal état war na génn leeral Sénégal yi c'est le devoir de l' comme ni ko Pape Alé Niang waxee ni Sénégal dañoo war a xam douze millions dix milliards yooyu fu mu jigee ak fu mu dugg Sénégal lañ ko xam tey jii noonu la état du Sénégal war a génnee leeral mbir mi nga xam ni maître Moussa Diop daal dina ko yëkkati mu nekk ay kàddu yoo xam ni ka yu tuuma la mu nekk kàddu yoo xam ne ay révélation la mu nekk kàddu yoo xam ne moom maître Moussa Diop dafa génne ay preuve yu leer naa ñu teg ko ci table ji ne ku ko defee preuve yaa ngi donc état du Sénégal war na leeral la le Sénégalais lambda war na leeral les Sénégalais yi nga xam ne ñoo jëloon seen pièce d'identité à l'élection présidentielle de deux mille dix neuf dem dans les bureaux de vote dugg ci isoloir bi tànn seen candidat mu nekk son excellence président Macky Sall ñu daal di koy votel mu nekkat président de la République pour une pour une pour une seconde fois moom itam war na activer la euh, la machine judiciaire ngir rek moom mu gën leeral mbir moom ba xam fu mu nekk mais tey ji bu ñu demee ba tey accusation yi di yàgg na ko euh, mois derrière maître Moussa Diop génnoon na yaakaar naa 7TV ci Maïmouna Ndour Faye wax les mêmes propos tey mu ITV tey mu génn waxaat les mêmes propos kon tey jii jot na état du Sénégal jéem ne serait-ce pour regagner la confiance des Sénégal bi ma ne ñàkk na confiance sénégalais ndax gis nga la sonkorisation bi ñu gis ci Amadou Ba bi mu France ak sonkorisation bi ñu gis bi États-Unis bi président de la République demee fële New York yooyu am yu mel yëpp dafa indi manque de confiance ci askanu Sénégal donc nag pour regagner la confiance des Sénégal de des sénégalais ci douze milliards yooyu nga xam ne Matar Diop tuumaan la Sonko noonee la war itam génn leeral li nga xamee ni moo accusation yi nga xam ne porté nañ ko yu ko maître Moussa état du Sénégal gis le procureur de la République récemment ci événement mars deux mille vingt et un ak juin deux mille vingt trois yi procureur daal dina génn daal di wax ne am na euh, force occulte am na am terroristes am na ñoo xam ne ce de l'ombre de la nañ ko askanu Sénégal xool nañ ko ba ñu ne am na ñun ci jàpp bu dugal leen ci kaso bi ñoom noonu mu defoon ci sécurité Sénégal ñu ne am nañ ay force occulte ay ay ay force euh, euh, noire je sais pas comment comment comment comment il l'appelait tey jii noonee la waroon a euh, procureur de la République daal di jug nag daal ne ah yëf kat am na fu mu jëm ginnaaw bi nga xamee ni maître Moussa Diop génn yëkkati ay tuuma kenn tontu ko mu génnaat yëkkati waat ay tuuma kenn tontu ko tey jar na aussi ñu leeral Sénégal yi nga xam ne kay ji seen bopp mi nga am ay ji jaaxa loolu bu ñu ko defee non seulement dinañ ci gagné lu bëri liñ ci gagné mooy état du Sénégal kat état bu état bu jub la état boo xam ni xam na dëgg te mi ngi def yoon bu fekkente ne loolee am na ñu fexe luñ ko réglé bu fekkente ne amul ñu woo moom mi nga xam ne moo di maître Moussa Diop mu indi ay preuve bu fekkente dëgg la ay xerul ñu daal di lijjanti mbir bu fekkee dëgg aussi ñu jël ko dóor ko ci kaso bi comme niñu defee ñoo am na ñu bëri ñoo xam ngi dund ci kaso bi te defuñu ñaari salaamaaleykum am na ñu bëri ñoo ngi dund ci kaso bi ay la yéwén bu ñu leen jàppee ñetti fan rek dañ leen waroon a bàyyi ñu delluwaat seen i kër loolu la ñëpp di dénoncé tey dëkk boo xam ne ni justice bi dafa nërmeelu dina ne daal vraiment day ñi nga xam ne moo di seen i njiit Bamba. jërëjëf merci en tout cas Abdou Khadre ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci leeral yi. jë jërëjëf jërëjëf merci euh, jërëjëf euh, Abdou Khadre ñu ngi koy jaajëfal bu baax en tout cas euh, ci leeral yooyu nga xam ne indi na ko ci à propos de Tariq Ramadan ci tontu boobee nga xam ne tontu na ko waaye te révélation yu maître Moussa Diop doon avocat la cour fële ca ba France

un million pour gisu rek pour ma leen jox ay xibaar yu wér te wóor parce que euh, fii ngeen di jëlee aussi li nga xam ne moo di ay xibaar yu wér te wóor ñu leen jaajëfal lu baax ñu woy également jëlaat internet yi bu ko defee ñoom it ñu mën a woy di joxe seen xalaat seen gis-gis ñu ñaan aussi ñu koy gàttal parce que ñiy xaar xaw nañu bëri trop salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum asalaam ñu ngi ziar kilifa gi yàlla nangu sa siyaar jaajëf noo tudd ak foo ñu woowee man de Modou laa tudd sant baaw di leen woowee Fass Mbao Modou naka Fass Mbao ñu ngi sant Sëñ Tuubaa bàyyi nañ ci jàmm naka dimanche bi waaye ñu ngi sant macha allah. jërëjëf yow la ñuy teewlu si waxtaan bi très rapidement Amadou. bisimilah li ma li may déglu ci seen émission yi. Mhm. man li may njëkk a wax mooy njëm ñun Afrique la ñu nekk. te Afrique dafa am nu mu bindoo. Mhm. dama bëgg ñuy laaj réew mi ak képp kum ci mën a nekk. Mhm. li ma ba damaa bëgg ñuy def dépistage xaw ma nuñ koy waxee ñuy xool deretu gaa yi. <laughs> xool pour lan. non pour xam gor yi ñu war di jiite ndax am na loo xam ne ku gor du ko def.